niki tey jii nag ci diwaanu Diass tàngoon na lool li ko waral moom moo aju ci wàllum coowal suuf waaye itam nag yemoo ak teewaayu ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di way tekku deer yi nag ci wenn site wu tolloog fanweeri hectare ak benn ci diwaanu Sakira nga xam ne état bu senegal rek moom moo ko jébal ab benn propriété privée loolee nag ndaw ñi fay yeewoo nag ne du ci dal benn yoon. waa Diass yàgg nañ xeex mbirum suuf tey nag dañoo jaaxle dañoo jommi. ndax waa population de Diass dañoo xëy gis fi ay forces de l'ordre yoo xam ne kenn xamul nu ñu toll li leen fi indi nag ñun ñëpp xam nañ ko ndax bu demee ba ay forces de l'ordre dugg ci benn gox pour sécuriser wala encadrer ay travaux ñun ñëpp xam nañ ne loolu ay njuuj njaaj la wala site boobu noonu liñ ko joxee jaarul ci yoon population de Diass nak ñoo fi daje tey di wax comme une seule personne Liko ko waral mooy aéroport bi mu ñëwee ci suufu Diass ba tey goxu Diass wala waa Diass ñàkk nañ plus de 75 de ces terres quartier bi nga xam quartier Sakirak Vous êtes étouffé de tous bords amuñu fu ñuy màggee te Sakirak fait partie des plus grands quartiers de la commune de Diass épinglés. Si vous boo à ci kaw AIBD boo à route nationale vous demee ci beneen côté Kiren. à l'entrée de Diass vous avez 31 hectares pour une defal extension loolu noonu ñoom ci seen bopp am nañ autorisation de couper Si vous ne euh, waa Eaux vous avez une autorisation ko jox ñëw nañ ci mairie bi am euh, délibération léegi nag li ñuy laajte mooy au nom de quoi au nom de quoi waa population de Sakirac demande ñu jox leen suuf soosu noonu état lankal leen ko di jox benn monsieur boo xam xamuñu fu mu jógee loolu la na dak gannaaw loolu itam nak ñuy artu ki nga xam mom modi moo rew mi di Macky Sall ngir rek mu andi safara ci wile jafé jafé rek ci ni mu gëna gaawé nous interpellons directement Macky Sall le président de la République du Sénégal ndax mom dafa melni dafa faté jass wala dafa bëgg a éliminer catégoriquement l'ethnie saafi te loolu duñ ko nangu suñu suuf suñu bakkan suñu suuf suñu bakkan duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg wolof nag dafa ne ku artuwul di nga àtte yaakaar naa lii boo moytuwul dinañ àgg ci àtte. ndaw yi nga xam ne nag ñoom ñoo yewee ci diwaan wa rek daal teg ab àpp wu tollu ci benn fan rek daal di koy rek teg ci ndoddu kilifa yi ngir rek ñu indi saafara ci mbir mi ci ni mu gën a gaawee lu ko mooy rek dinañu andi weneen xar kanam.